tey nga xamante dañ koy muule ko ay genre canalisation mhm. pour ndox mi di jaar si suuf ñëw si bassin bi nekk si boori école primaire kunun bi mhm. bassin ba nag toj na i mil boo ñëwee cité enseignant kunun jàpp daaru cubb tëmb si géej moo ko tane ndox baa ngi bal di jàll di dem ah déet waay billaay wallaahi li ma lay wax ni du ay fen ndox mi day daw comme géej gu màbb ba ba daani miiru école bi laal sa chef cinq jàll hmm. li ma lay wax ni lu wér la nekkul ay caaxaan ci ah, télé laay xam naa vidéo comme que ñun mënaguñ faa ñëwagum xanaa ko rek eh, ma wane sama image mun naa la ko vidéowal dugal si sama xam ne firnde yi rek lañu bëgg ñun defee kañ xam naa ñoom moomu ak toute l'équipe dinañ mën a déplacé wu kam jàpp na maire bu jàmbaare nag mhm. Pape Sow jàmbaar la gor la garni la. léegi jamono ji itam yéen nga xam ne mooy askan bi fa lan lay wàllum yoon ak yoonal teg seeni loxo pour ngeen xam li tax jamono ji ñu tee ko ndax ah, ñu fàttali ci mbiri Juan Branco ba léegi ci lañ ko tegee loxo ah, ci li nga xam ne moom la ñu jot a déggagum yéen nag yéen askan bi ndax am nga yeneen information yoo xam ne am amee ngeen ko. xam nga xam nga mbir mi senegal ñëpp xam ne nu muy demee ku am ndey ku ma amul ndey bu dee si affaire Juan Branco lañ koy jàppee jàpp si ñeneen. Juan Branco mi nga xam ne ñëw na Sénégal génn waat dem yoonam léegi ana ana ana ana ana ana kii résultat yi xam nga yéen ni waxul naxaate la ak foowee sa xel. Mhm. tey booy xool tey li si gannaaw Barthélémy Dias rayu fi nit. Mhm. rayu fi njàgga. Mhm. anamu du mu ngi dox soxlam. d'accord léegi moom nekkatul opposant ci pouvoir la nekk ndax ba jëm si yàlla tey génnewuñ seen làmmiñ dem fen ñoom nañ bokk rek la ñu waxoon léegi bokk ne nañ xool nan la ñuy convaincre Sénégalais yi mhm. d'accord am na ñoo xamante ne ndax sa bopp la muy Boun Abdallah muy Amadou Ba mooy ku ñu mënta teg Sénégal bu leen neexee ñu def seen bataille cheval de Troie mhm. Ousmane Sonko leer laa la wax ni bu mhm. joxoñoon sax Euh, benn dof buy dem Sénégal yi dinañ ko fal mhm. xam lu tax ma wax la ko mhm. Ousmane Sonko ñaata nit la fi def meer te nekkul candidat élection législative yi ñaata nit la fi def député te Khalifa Sall moo yàq seen liste bi te dafa am ngoram def ñu bari maire Amadou Ba fu ko locataire gagné la war a gëm yàlla xam ne mënul gagné Sénégal xam nga yow locataire gagné la <laughs> non ñii dañuy fooyee seen xel billaay. Ah, mais mais mais mais attends mais bàyyi leen nag di wax Jami Sané nag bàyyi leen Jami Sané locataire. ah xam nga li tax ma wax ñi leen passé waa passé dañu leen mere. bàyyi leen seen mbir mi ngeen di wax locataire. non defal ndànk ja Jamil Sarr ñëpp xam Jamil Sané ñëpp xam ne liggéeykat la man dafa la bëgg a wan ni tey Ousmane Sonko dimension laa la bëgg a wax képp ku mu jàppale da ngay gañ da Ousmane Sonko dafa jub dafa jullite. dafa maandu quinze ans impôt domaine mu soo sàcc dërëm Aly njaay Ndiaye mi ngeen di wax nii am na benn sitam bu nekk fii nga dem cité si gannaaw marine française bi hmm. cité Aly Ngouille Ndiaye la tudd ñëwal boo ñëwee Almadies 2 nga laaj cité Aly Ngouille Ndiaye la ko nga dem cité billaahi wallaahi cité moom moo ko jaay moo ko moom moo ko tuddee boppam gis nga man cité la laay waxee mun ma fi nekk di wax li nga xam ne suba dañ may jël si naan la won ma te doo mën a won loolu du ma ko def ñoom ñëpp ay milliardaires lañ ah bàyyi suñu dëkk bi nii Sénégal dara doxul xam nga ñun waa ginnaaw raay waa Parcelles ñoom ñoo jooy moo tax ñun dañoo noppalu hmm. gën a jege ci ville ah jël ñu dem si diggi si diggi ndox lañuy ñuy dund te kenn waxul Sénégalais yi nañ xam ne deux mille vingt quatre mooy suñu unique chance ñu changer suñu réew mi totalement système politique bi fi nekkoon de mille neuf cent soixante changer leen tépp ku laale si Macky sàll ci bulletin de vote yi kenn du ko laal Ousmane Sonko même bu amoon couleur bu bleu couleur bleu bi rek la ñuy laal quel que soit alpha ñu Ousmane Sonko daal lu mu wax moom la ñuy def comme ñun ñoo ko réussir ci législatif yi hmm. kon présidentiel mooy gën a yomb ah. xam nga mbir mi mbir mi xel la nekkul ay waxee fit waxee doole walla du xool lu neex nit mhm. nit ñi muus neen yeewu neen télé yi bëri neen RTS kenn déglootu ko TFM waxul noppi gis nga Youssou Ndour ba mu demee Paris luñ ko def muy dem di porte plainte ay nit na leen du sénégalais ah ya dafa yàq rôle am waroon nekk tey ay ay ñoom Papa Wemba si Afrique wala nekk ñoom Alpha Blondy ñoom Tikin Jaffa Koli Ah, war nekk ñoom. Ah, euh, mais mais mais euh, mais attendez mais mais côté boobu itam am na am est-ce que amul manipulation d'information bu ñu jox daay Youssou Ndour euh, moom mi nga xamante moom moom may gars yi sonkorisé porté wul plainte ndax naan na sonkorisé de. am non si porte plainte na après ay gros bras ñu leen jëlee gis ni man mii di wax ak yow ñun am nañ ay frères yi nga xamante ne. ci yoonu suuf lañ jaar ñu jël gaal ba dugg Paris mais mais plainte ba ñuy wax. ça n'a rien à voir ak li nga xamante ne moom moo moom moo doon yuuxu sonko sonko bi parce que moom moo leen may loolu non loolu loolu bi la woon gis nga gis nga gis nga deux minutes yu mu leen may. Hmm. pour won leen ni il est démocrate mun na leen may mais après affaire bi dafa dem ba nekk sanction ay nangootuñ noppi. mu indi ay gros bras ñu jàpp gars yi police yi yóbbu leen police gars yi génn nañ wax ñun am nañ copain yi fa ne ñu jaar si gaali jaar yoonu suuf ñu ngi Espagne ñi ngi Paris gars ñu ngi déggante ak ñoom téléphone te ñëpp a ngi waajal génn Sénégal. man quatre mois laay xaar de incha allah bu élection yi jàllee bu Sonko faluwul ma dam leen di bàyyi ak seen réew. ah <laughs> lu leer laa la wax man moo ma teree dem ni maa ngi ak moonin bi toog maa ngi ak xaalis bi toog maa ngi ak yoon bi. Hmm. mais dama bëgg a xaar élection yi dem bëgguma ñàkk sama carte bëgguma ñàkk xeexal Ousmane Sonko si élection yi. taxaw ci hmm. bopp koñ di orienté booy di leen woon bii ngeen di voté bii ngeen di voté bii ku ko votel Macky Sall nga votel bu leen ko laal. Hmm. noonu lañ ciy liggéeyee ñun. moo tax kenn mosu ñëw dóor fii laajal laajal Omar dañ ko fee dóor dóor yu métti <laughs> te xoolal Pape Sow Ousmane Sonko benn vidéo bu gàtt rek la def mu gagné élection yi kon Ousmane Sonko bu tegoon sànkam sàngal kaam lu muy nar. <laughs> d'accord c'est merci liggéey rek la ñuy def léegi léegi juste yaa yaa ngi joxe information parce que euh, même Juan Branco euh, keroog ñoo ñoo ngi def ñoo ngi doon déglu li nga xam ne moo di live am moo ngi doon annoncé ne effectivement y a eu des des arrestations à Paris mais ba léegi nag ah les motifs des arrestations ne na am na ñoo xamante ne teg leen loxo waaye li xam ne moo tax tey ñu teg leen loxo ba léegi amaguñu euh, lu ñu leer yàqin ne ne ci ne ci ci directement. non loolu la ñi ñi diggu génn wax neen li ñu leen jàppee xam nga mbir ku nekk yaa xam li ñu la jàppee. Mhm. ki diggu génn dafa ne carrément dañ ko ne Youssou Ndour nee da ngeen doon def trouble à l'ordre public da ngeen doon saboter soirée gaay bi ne la kii Youssou Ndour politicien la mu tapé si YouTube bi génn leen fekkee ma ci boole gaay tubaab bi xool vidéo yi xam ne kii c'est un politicien kon réponse politique lañ doon def parce que Youssou Ndour mënu xaatee ñu rey fi ay nit depuis deux mille vingt et ah di rey ay nit di massacrer ay nit mu ne tekk noppi toog si mu dem ba xam ne Macky Sall ngi ñàkk pouvoir mu ne xaaral ma rocceeku gémmi xaaral ma uti xaalis xam nga dafa bëgg xaalis ñoom seen famille famille xaalis lañ léegi nag mu dem fële gars yi saboté soirée wan ko ni tu es complice yooyu ñoo ko métti te fu mu dem sa Europe tamit noonu lay continuer ah, ah, yaay laa yow Macky Sall moom mën a suul ndaanaan yow ah waaw baax na merci ñoom ñëpp seen der yàqu na merci merci jaajëf. incha allah euh, merci beaucoup di leen wéy di ñaanal maire bi rek ah Sow donc xam naa. non maire bi laa la wax ci kattanu yàlla dina génn. Mhm. dara yàggatul gis nga affaire yi. 4 mhm. mois la rek boo ko mu muñee mu jeex man mii toog di muñ sama ñàkk dem. te xanaa nag ci tëdd kaso mu leer na yow di nga génn di nga jiitewaat sa mairie jarul yàkkamti. d'accord 4 mois la ñun billaay wallaay laa la wax gis nga affaire bi jarul campagne. Mhm. ñun waa koñ bi ñooy gagné. parce ah, que ñun ñooy taxaw si bopp koñ ñooy waxtaan ak booy xamal booy bu leen voté gis nga gars yi mën na dem ba jour vote bi. Mhm. ñu changé idée. parce que ñun ñoo leen di changé loo idée leen di xamal ñaawteef fi fii am te nii lañ def dëkk bi dox. Mhm. te Ousmane Sonko actuellement ni gagné na élection yi te campagne parce que ñun ñoo nekk ci base bi ñun ñoo leen gën a xam gars yi ba ñu këppee seeni milliards booy dañu koy lekk def lépp. mais élection bu jotee si bopp koñ la ñuy taxaw. Mhm. génnee benn spécimen bi nga xam ne Ousmane Sonko moom la accordé ñu ko quelle la couleur. ñu won ko booy booy dem voté ñu won ko maire yi maire yi dem voté dix huit heures ñu tëj frontières yi acca ñu commencé liggéey bi képp ko laaloon si alal réew mi di nga fay. <laughs> yow moom daanaka daanaka yow teg nga sa programme toog di xaar. yaa <laughs> yaa yow noonu lañ gañoo Omar Gueye dañ ko fi dóor yi métti muy dugal ay recours amul dara. <laughs> xëy merci saa waay ñun ay lébu lañ de. xeex ak la ñuy def merci <laughs> merci beaucoup ah di nuyuwaat bu baax a baax ah, di la nuyuwaat di la jaajëfal di nuyuwaat ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ca diwaan ba nga nekk di Sàngalkam